tey dañoo ñëwoon réunion euh, réunion bureau élargie à certains membre du comité directeur pour wax leen résultat yi ñu jot a def ci liggéey bi ñu ñu santoon yéen a ngi fàttaliku ne keroog bi ñu defee assemblée générale ba def suñu réunion comité directeur dañoo ne woon ASC Daara budget bi fixé nañ ko ci 19 millions ñu ne ma ah kon yow yaay président il faut que 19 millions yooyu nga fexe ba lijjanti ko ndax équipe bi actuellement kees gi amul dara nga lijjanti ko aussi ci anam yu gaaw ndax ñu mën a commencer championnat bi. biñ ci tegee ñaari fan après suñu réunion boobu commission sportive def réunion ne ma président bëgg nañu nga wutal ñu entraîneur bu ñëw yore équipe bi. entraîneur bi ñu bëgg mu ñëw dafa war a nekk entraîneur bu am expérience bu yàgg ci mbir yi bu nit ñi xam entreneur boo xam ne bu ñëwee aussi dana nangoo toog daara jàppale équipe bi mais dana nangoo toog daara aussi pour former xale yi nga xam ne bëgg nañoo nekk ëllëg entraîneur ñaari objectif yooyu la ma équipe bi santoon ma ne woon comme def naa ci ay jéego baax na ñu ñëw tey ñoo wax lan lañ ci jot a def ak lan lan lañ ci jot defagul ci budget bi nga xam ne santoon nañ ñu lijjanti ko muy 19 million ah, maire daara muy mamar Ndiaye laa ci njëkk a waxtaan ak ma ne ko ñun def nañ budget 6 millions pour mairie bi mu ñëw moom ci boppam bokk ñoo commité directeur wax nit ñi dégg danaa leen jox budget bi te dinaa ko def ci anam yu gaaw kon ci loolu ñi ngi koy sant di ko gërëm ah, ma ne comme 19 millions am nañ 6 millions déjà aussi mbir soo ci nekkee daf lay jaral je pense que proposition bi ci Lamine Ndiaye jo la njëkk a jógee mu ne président moom ne nee na am na ay porteur de bonne volonté yu taxaw pour jàppale équipe bi mais moom personnellement joxe na 3 millions. mu ne président nag bu joxee 3 millions ñun membre de comité directeur nañu fexe ba ñun ku ci nekk chaque mois nga joxe cinq mille francs loolu lañ tënk dañ ne dorénavant tous les membres du comité directeur ku ci nekk dina joxe cinq mille francs par mois. 5000 francs par mois boobu danañu permettre ñu développer suñu yeneen activité yi képp koo xam ne aussi bëgg nga bokk commité directeur danañ la inscrire parce que fermé wuñu liste bi on a une première liste de cinquante membre mais soo xoolee cinquante membre yooyu mooy ñi nga xamoon ne rek mooy ñi nga xam ne fekke woon nañ keroog réunion bi mais am na ay bonne volonté yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi keroog fekke wuñu réunion bi te ñun soxla nañ leen donc ñooñu aussi danañ leen dugal ci comité directeur bi mais li ñu tënk daal mooy bépp membre comité directeur dorénavant dina joxe cinq mille francs par mois bu ko joxewul à l'issue de deux mois dañ koy génne ci comité directeur bi objectif ASC e e Daara mooy sur cinq ans mu egg national